réew mi 24 TV. jërë ngeen jëf ci ànd bi ngeen ànd ak internet bi di réew mi 24 TV li gën a fës ci bopp xabar yi nag dañu koy door rek jëwriñ bu ñu denk wàllum napp. wàllum napp mi ak infrastructure maritime nag moom ci jëmi boppam rek doon na amal ab rencontre waaye nag ma ngay sàkku rek ci directeur yi chef de service yi ak ñi nga xamante ne rek ñoom ñooy liggéey ci wàll wi ñu gën a rek jege ñi nga xamante ne rek ñoom ñooy nappkat bi moom jëwlin bu ñu dénk wàllum napp ak des infrastructures maritime di wuyoo ci turu docteur directeur di wuyoo ci turu directeur Fatou Diouf dal dinay amal ab réunion niki tey ci talaata ji yem ak fan ci weeru avril ci atum 2024 2024 boobu lay réunion nag moom moo ko doon coordonné ak activités yi nga xamante ne rek ñoom lañ doon def ñeel département yu nu mel ba tey rek ca boobu lay occasion nag dinay saisir ñi nga xamante ne ñoom ñooy directeurs yi ak chef de service yi ak nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci département bi génn ci seen bureau yi rek bu ko defee rek ñu daal di mën a am contact direct ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy acteurs yi kii di directeur Fatou Diouf moom nag daal dinay présider boobu lay réunion ak coordination nag ànd ceek directeur yeeg nekk chef de service ak ministère yi ci ordre du jour bi nag nekkoon na yoo xamante ne rek dañ koo teg ci ñaari poñ bu ci njëkk nag mooy am information maanaam am ay xibaar euh, ba noppi rek def ay compte rendu ci activités yi nga xamante ne rek doon nañ ko def mu wuute lool moom jëwriñ ji nag da dinay profité ci boobu boobule occasion daal di gisanteeg nit ñi ba noppi dajalay lan dajalay képp koo xamante ne rek directeur nga ak chef de service ngir nag ñu daal di amal euh, rek moom la ñu war a def ci biir réew mi ñu ànd ci nag ak dynamique ak bonne gestion bu am solo ci département bu nu mel ba tey rek moom ci jëmi boppam rek daal di nay sàkku rek ñi nga xamante ne ñoom ñooy collaborateur am ñu gën a jege nag acteurs yi bu ko defee rek ñu mën a def visit terrain yi beneen bi ci topp nag ñu def situation boo xamante ne rek situation personnelle lay doon ñi nga xamante ne rek recruté nañ leen ci diirub juróom benn weer yi jàll bu ko defee rek ñu jël leen en compte euh, jël seeni document ba noppi def euh, déclaration politique générale euh, comme ni ko premier ministre bi sàkko woon moom ilimaanu jëwriñ bu njëkk bi beneen bi ca topp nag nee na document bi ñi nga xamante ne mi ngi leen ñu ngi koy xaarandi rek lu mu yéex yéex rek la nekk au plus tard 10 du mois de mai maanaam daal fii ak le yaakaar nañ ne nag loolu yëpp war na mën a yemb nee na nag bi ci toppaat moo dina ñu transmettre ko en temps réel maanaam daal bu mu am benn benn retard bu ko defee rek ñu xam lépp loo xamante ne rek xibaar la ñeel différents programmes yi nga xamante ne rek jamono ji daal dinañ koy anticiper mu ñeel nag yooyu les dossiers beneen bu ci topp nag ñu dem def expression yoo xamante ne rek dañuy xam bu baax nag bëgg-bëgg ñi nga xamante ne rek ñoom ñooy personnel bi bu ko defee nag ñu mun ci ànd beneen bu ci toppat nag ñeneen nañu xoolaat di nga xamante ne rek moom mooy code marine bu marchande bi bu ko defee rek liggéey bi gën a mën a jaar yoon ba tey rek la li nga xamante ne daal dina la koy wax ma ngay sàkku rek ñu amal projet yoo xamante ne day tënku ci décret bu ko defee rek mu nekk loi yoo xamante ne rek yu ñu soppax ñi dëgg rek uh, lay doon ba tey rek moom jëwriñ bi daal dinay xam ne nag ne na compte bi nga xamante ne rek uh, moom lañ doon def ci boobu le visite nga xamante ne kii di président de la république Bassirou Diomaye uh, Diakhar Faye daal di woon na koy amal nag ca diwaan bu Mauritanie nekk na nag mbir moo xamante bu république la waaye nag boo xamante dafa tënku rek ci wàllum islamique rawatina nag ca diwaan bu Mauritanie nga xamante ne rek ñoom ñooy partenaire ci diggante ñaari réew yi ci domaine bi nga xamante ne moom wàllum napp mi nag daal dina fa yëkkati ay kàddu kii di directeur Fatou Diouf daal dinay xam ne que ne nag ab délégation nag bu jugee ko ca diwaan bu Mali rek dinañu ko bu jugee ko ca diwaan bu Mauritanie dinañu ko xaarandi fii ci biir réew mi waaye nag daal dinay sàkku rek ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy yor ñaari pàcc yi rek mu ñeel DPM yi ak li nga xamante ne rek ñoom ñooy DPSM ci seen jëmmi bopp ñu waajal seen plan juridique bu ko defee rek ñu mën na dalal dalal délégation bi nga xamante ne rek ñoom ñooy nekk seen protocole bu yees ba noppi rek daal di amal obligation yoo xamante ne rek yu am solo la bu ko defee ñu jëfee lépp loo xamante ne inspiration la ak modèle mauritanien comme nañ koy defee ñoom mu nekk système de garde bu dee ci côté directeur yi ak de service yi kenn ku ci nekk nag am nga temps pour wax waaye nag na nga jéem a def ab bilan ñeel activités yi nga xamante ne rek moom nga doon yëngatu beneen bu ci toppaat nag nga joxe program bu am solo moom jëwriñ ji mu daal di koy jeexale boobu lay réunion di sàkku nag ci lépp loo xamante rek structure la ñu di def ab rapport d' bu ko defee rek ñu gën a am meilleure appropriation boo xamante ne rek dossier bi dina daal di dëgër bu dee nag participation ministre bu fiara moom nag ma ngay sàkku rek ñu daal di def rapport évaluation càmbar ñu xoolaat rek li nga xamante ne rek moom moo nekkoon édition bi jàll di kaddu yi jëwriñ nga xamante ne rek moom la ñu dénk wàllum napp gi jërë ngeen jëf ci teewlu bi bu leen fàttee abonné بس كروس النوتيفيكاسيون يجرمون أمين اللي خباه